bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa saxbihi wa xayra qadimihi dawi ridwani wa tamkin in uridu illa alislaaha ma stataat wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokki jullit yépp kilifay diine yi kilifay àdduna yi bokk yi bokki taalibe yépp ñu ngi leen di nuyu ci làmmiñu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mii sunu kilifa di sunu jëwriñ ci kër Cheikh Souhaïbou Mbacké ak ci turu ay rakkam ak njabootam ak i taalibeem di tàmbalee nuyu bi ci sunu kilifa ak Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne mooy borom bis bi tey borom kër gi waxoon naa ko démb ne ko sa jéego yii rëy la ci nun lool waaye it mënula ñàkk ndax dangaa seet si sa kër nit bu amee kër daf koy seetsi te kër gi sa këra ana lu tax ma wax ko kër guy kër sëñ tubaa tey rek sëriñ Baara ko yilif te fii kër sëñ tubaa la waaye itam dafa am leneen lu ci làqu kër yi sëñ Touba yi ci Touba fi ñuy wax Touba moo ci jiitu mooy fi sëriñ bi nekk tey muy fi mbépp gi fi sëriñ bi tëdd tey daarul Xuddoos la ci ak sanc ko daaru Rahmaan gii la ko ñetteele fu ci ne am na lu taxoon mu sanc ko ak ñu mu ko jagleeloon fii nag boroom xam-xam yi la ko jagleeloon di leen fi dalal ak di fi wéet ak ñoom waaye ma ne nañ jàngat ana sëriñ Fallu ak sëñ Moodu Moustapha lu tax dalaliwu leen ca kër sëñ Touba këram ga wax Touba te mënoon na ko këram ga ñu wax daarul xuddoos dalalewu leen fa te manoon na ko mu ànd ak ñoom ba fii te fii sori na ak foofa lool booba te booba këru dëkkugaay ga ma nga ci fii mu nekk tey fii barabu sëriñ Modou safaa nekk moo doon néeg soxna Aminata loo fii barabu sëriñ Fadlu ne moo doon néeg soxna Awa Bousso foofaa doonoon kër gu mag te teewul mu jàpp seeni loxo andi leen ba ci kër sëñ soxna bu gii tey di Daaru Rahman am na dimb gu ne woon ci biir kër gi mu toog ñu toog ku ne dalal la jàng loolu am loolu mooy fii barabu al barabu alquran la barabu xam-xam yi am njariñ yépp la barabu barke la kër sëñ Tuubaa la yëpp waaye itam sëñ Fallu am ci cëru boppam ndax fii la dalee alquran kon nag bu Cheikh Mouhamadul Amin di def lu mu jóg lu baax lu ne mu na ca jox nu ci cër bu doy sëkk di ko doxee di ko waxee loolu du kiimaan lu war a man a am la ndax sëñ Fallu dafay am cër fii kër sañ Tuubaa la te mooy sëñ Tuubaa tey kon nag noo ngi koy sant bu baax nun nit lañ ñoo xam ne ku defal nu sant la ku nu defalit sañ nañu ne cell duñu wax dara waaye nag yëg nanu te it yéeg a koy fay kon nag noo koy delloo suñu bopp di ko xamal ne fu nekk moom lañ fa nekkal jëf Mbacke bi ci topp mooy di nuyu mboole mbokki Serigne Touba yi li aju ci li tàmbalee ci Cheikh Moustapha njabootuk Cheikh Moustapha ba ci Cheikh Moustapha njabootuk soxna Fatija ba ci soxna Maymunatu Suxra kenn desut ku fi ñëwut it am na ku la fi ñëwal ñoom ñëpp xam gi ñu xam ne bis bi seen bisa ñoo ci yem képp moo tax ñu doxee ko noonu kon nag ñoo leen ciy sant di leen ci di leen ci ndokkeel bu baax a baax di delloo cant yi mboolem bokk yi nga xam ne ñoo bokk askanu Mbàkke yépp li ko tàmbalee ci maaram maam Balla Aysa maam Mor Anta Sali ku ci askanoo rek ku bokk ci yow ak askanu mbusoo beeg yépp ak doomi soxna yépp ak seex yépp ak taalibe yépp noo ngi leen ëmb ak cant gu mat sëkk di leen ko jotal ñi xatug waxtu wee tax waaye kon mu gën a mën a jàll ba ca kanam li ñëw it ci délégation officielle bi nga xam ne moom la fi président Ablaye Wade yebal jiital ci it maître Madické Wade maître maître Madické ñang xam nga day taalibe ci kër gi moo tax sama xel dem ci moom <laughs> waaw maître Madické ñang mi nga xam ne ku ne xam na li mu doon ci kër gi wëllëri la taalibe la ci yoon wi lépp la ci yoon wi kon nag bu ko ci jiitalee mu ànd ak Moussa Sakho ak Abi mbey mi nga xam ne ku ne xam ne taalibe Serigne seex la euh, tey jàmbaari kër gi lool nag aw sasam du booy mukk kon kooku bu fekkee ñooñu la la la boole yebal leen fii loolu lu ñu yëg la lu ñu safoo la lu ñu neex la euh, xam nañ ne waxtu wii ñuy tànn délégation bi ñu bari ci kilifa yi dañ fee newut waaye ma Madické bi mu jox ak man amoon na yéene ñu doon mbooloo mu baree bari waaye nag lii doy na sëkk nun ak yëg rek lañ ci soxla tey lii wan nañ ne yëg ngeen bis bi yëg ngeen sëriñ bu sant nañ leen bu baax a baax ànd nga ak mboolem ñi nga war a àndal ci région bi gouverneur ak ak sous-préfet ak mboolem chef de yi te mboolem lañ leen waxoon mboolem lañ leen waxoon ca CRD ba it la ca man lépp def nañ ko lañ ca tey nit jéggal nañ leen ko ngir lañu ca man te def ko di la xamal ne rek nga wax président ne ko rek ab sëriñ moom mënul dul ñaan ñaan lañ gese moom lañuy ñaan li ñuy ñaan mooy ku ne ci bopp réew mi yàlla may la jàmm ndax sa jàmm mooy jàmm réew mi moo ngi ñaan réew mi mu jóg ci xat-xat yépp ak jafe-jafe yépp te jàmm sax fi ba fawwu te rafet nañ ci njort ne mu Sëriñ Tuubaa ne ku fi bëggut jàmm it yaay ñàkk jàmm waaye fokk mu am kon nag loolu rek laa doon wax ci délégation bi nga xam ne moo jóge ci président sant mënta weesu sant sant nañ leen gërëm nañ leen di beral loxo sama cantu bopp nag sama xaritu bopp Cheikh Hadjibou Soumaré tey jii laa ko gën a jàpp yabal na fi soxna mu teewal ko fi soxna Fatima Guiro maa ngi koy sant di ko gërëm ngeen baal ma nag ma ñëw ci borom bis bi rek waxtu wi dafa xat sëriñ sang bu mii nga xam ne moom lañ jagleel bis bii te mu gane àdduna ci bisub ajjuma ci juróomi fan ci weeru koor ci njaaréem sëriñ tubaa wax ci wax ju rëy rëy jëf ci jëf ju rëy rëy joo xam ne barab bi laajul wax ko moom de li nu mën a seere ci moom donte doomam lañ ab taalibeem ab taalibeem la ñu sañ nañoo seere ci moom ci wàllu taalibe moom de jaamu yàlla la woon buy jaamu yàlla ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taalibe Sëriñ Tuubaa it boo xam ne dafa tànnoon liggéeyal Serigne Touba ci li Serigne Touba gën a bëgg jiiru dundam muy jàng ak jàngale ndax Serigne Touba dane kitaabu rabbi xadaa kansi wa martabati qad fustu fiihi wa fil maahi bi arbaax maha uyubi wa asaami wa allamani bikun uluman saqadni saqya dullaahi waxaan ne kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wanan diw bihi dunya wa uxra min al karbi ba sëriñ soxay bu xamee ne fii li sëriñ bi teg alxuraan nii li sëriñ bi mel ak alxuraan mu bañ koo booleeg dara def ko liggéey di ko liggéey yi nag ci njabootu sëriñ Tuubaa gi ak taalibe sëriñ Tuubaa yi ak jullit yépp ba am ci résultat yi mu ci am tey moom sëriñ soxay bi ni ko yàlla bindee dafa doonoon ku teel a bëgg sëriñ Tuubaa ak roy ko teg tànkam ci sariyaatul mutahara ak xaqiqatul munawwara teel a wuuteeg nit ñi lool ab jëmu ak gisuwaay li wolof di wax tuut tànk ba muy tuut tànk rek la ko yàlla wuutaleeg nit ñi ci ay gis-gis ak ku melo ak cim xel mu rafet ndax wax na ne bi muy am juróomi at toll ci xam ne tuuti rek dafa am ku daa jàng wala fa li bay jaxate ci kër sëñ Tuubaa ci fi tolloo kër jigéen mu dégg muy wax ne yow miy nelaw taxamoo bis penc boo fa demee dangay ngay dangay da ngay yeyam dañu lay yey moo na ngay nelawe yow miy nelaw taxamoo naaree ki àjjana foofay dem na ngay nelawe ñaari bayit yooyu nee na ba nga ko déggee aw jàjjale ci moom woo xam ne ci juróomi at la toll waaye keroog la mujj nelaw njël yàlla it may ko loo xam ne mosuma dégg kum ko may néew ma amut waaye bëriwul mooy bi muy toll ci juróom-ñett juróom-ñetti at tàmbali jàng alxuraan tuuti ba xam julli juróom ni mu toll ci boromam ak ni ko suñ borom fonke ci la calcul waxtu woon juddoo ba ci juróom-ñetti at yooyu ni mu toll ci julli mu fay ko nee na xam naa ne waruma waaye dama ko def def njukkale ko sama borom loolu di mosuma gis koo ko def ci yu baax yàlla yi may ko ci xel mu rafet xel moo xam ne jàpp naa ne du xel wilaaya la wilaaya nag waxtaane ko ci kër Sëñ Tuubaa daanaka jur ko ndax dafay fekk baax waaye xel ma daal yéem naa ko man mooy dana di wax ne soxna Mariama Jaxate mi waajuram at at ak tuuti lañ am masalan sama sama waajuru turandoo soxna xëri mbar moo nampal sëñ Sohaybu soxna Mariama Jaxate at ak tuuti la am ak moom te sëñ Sohaybu daana netti li ne fàttaliku naa ku soxna Mariama Jaxate daa jàngal alxuraan di ko ko sax sa nuquri uka falaatan seeje ba nëgg ni fàttiwu bokk na ci li ma ci gën a yéemit xasida ak ifki nii bi ko sëriñ Tuubaa génnee dégg naa ko ba tàyyi sëñ ak sëriñ Sohaybu ku ci bi nee na xasida gii day ku ko mokkal jënd nga sa àjjana dee rek la ca teeku xasida googee ba ko sëriñ bi génnee ci njëriñ da koo jox jigéen ñi kër gu mag yi ne leen na ngeen ko mokkal ku ko mokkal dee la tee bi àjjana jigéen gi di ko mokkal di ko tari kenn ku ne di ko déglu sa morom sëriñ soxna nekk fi dalagul jàng dégg koy dégg ñu di ko tari mu mokkal ko ci te dalagul li ci gën yi yéen it mokkalee alxuraan ba noppi sëriñ Abdul Ahad njëkk koo mokkal di jàng xam-xam ci taabu tasrif bi ñuy wax ci sarf bi ko sëñ Abdou di jàng moom da daa ko baamu te moom neexum xel moom lool ci man la di ko di ko tari lu bari ci wetam nee na dégg googu ma koy dégg ci la ko mokkale jàng ko ba tey kon nag kooku Serigne Touba daf ko waajal waajale ko mu doon ndabul xam-xam loo xam ne day former génération bii ak bii nu jëm mu teel a dog yoo dog lool yoonu tasawuf itam waaye muy tasawuf bi ñu Serigne Touba jàngale boobu mooy ban xaqiqatu suufi yi aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil boobu mooy xaqi bi Sëriñ Tuubaa tànn boobu nag moo ñoroon suñu champs bi ci la tegoon tànk mu doonoon kuy dund xam-xam te di ko dundal doonoon ku bëgg boroom xam-xam yépp donte bokkuñu ay tarixa sax fonkoon lool xasaa di Sëriñ Tuubaa itam bari lool mu ci mokkal itam. daa ko boole ci ay awraatam yi tam tey rek maa ngi ciy waxtaan ak sëñ Moussa Abdou Khadir bi ñëwee sama kër nee na daf ma ko daf ko doon laaj ne ko jaalibatul maraqib dafa bari ci taalibe yi ñu koy ragal naan dafa am lu ci ne ba nanguwuñ ko jàng mu ne ko pexem saytaane rek la ndax man mii de du ma ko jëndee bés kat danaa ko jàng te dara jotuma dalu xanaa gisul mujj xaside gi la ci sëñ bi ñaan lépp waxam ne man yàqu maa yàq bitu ku koy jàng ku dul moom na ko ñee mu ne mu wax ko ci loolu ku jàng doo ko am te saytaane nag bëggut ku ko jàng ndax bëggut ko am loola te mës a mës genn guddi goo xam ne diggante timis ak gee tëriwu fi gës bu mu waaye bu mu xaddimaat kon ku wut ku wut murit murita nga ku wutub sëriñ sëriña ku wut ku ku wut doomi sëñ Tuubaa ju mat sëkk juy gëmbilee tey ak ëllëg mu ngi noonu kon nag sant yàlla bu baax te ci sëñ Sohaybu te tey xam ne am nañu sas képp ku ñu tudd tudd sëñ Sohaybu muy doom muy sët muy taalibe ku la xool dana xool ci yow loolu kon nag nan góorgóorlu bu baax a baax a baax ba nuru sëñ Sohaybu tey sëriñ bi sëñ Tuubaa daana ku xëy jëm penk kii jëm sow tee nga ne faw ñooy bokk añ loolu dangeen ngay nax sa bopp rek mënut a am tànkam fam ko tegoon buñ ko mënut di ko roy te di ko bëgg te ànd ak wëlu suñ Tuubaa bañ ko boole dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam kàddu loolu rek moo taxoon suñu son yi ngeen def la ci loxol sëñ Abdou Lahad bokk yëpp taraanga jëm fekkoon fàttali bokk yëpp délégation bi bu noppee ci biir la ñu dugg. wax taalibe yi ñu toog ba suñu yéen bokki taalibe yi toog leen te nangu ñaan may kilifa yi bañ dem. amiin amiin